mbokk yi léegi ñu ngi box number 28 box numéro 28 fekk fii bergerie euh, Bamba fépp war a waxtaan ak sëñ Fallou box numéro 28 coïncidence bi rëy na bari na macha allah sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu di bu baax. waaw ñu ngi delloo ziar bu baax baax. ñu am mbégte ak cawarte gu rëy ñoo fekk la fii war a waxtaan ak yow ci seen exposition bu am solo bi. waaw sant rek sant bu baax a baax rek di xam rek di ñëw rek di xool foir bi ñëw nii imposé ànd ak suñu xaadim ndax xaadim mooy bamba fépp moom moom bergerie bi man dama faa nekk di ko yoral nii rek ñëw tey dugal macha ni ñëw imposé ñëw ñi ay doomam lan fii ñi kër ga lañ juddoo am na doomi ni doo macha allah mu jur bële na le seex la boobu ma nga kër ga waaw moo tax ngeen ñëw def ci exposition bu am solo xam nga moom sëñ bàmba bu liggéeyloo sëñ fàllu mënul def lu dul jag macha allah yaa jàpp naa ne liggéey bi kon jag naa léegi euh, ngeen nekk di dund seen foire bu njëkk naka ngeen nekk di ko dundee jamono ji waaye sant yàlla rek sant yàlla loo gis loolu rek tàmba moom dina xaw a mit waaye dañuy ñaan yàlla su ñëwaatee mu gën a avenir gën jëm kanam daal waaye ñi ngi sant yàlla bu wér gis nañ ci tawfeex baax a baax gàmm bi nag nit ñi génn nañ waaye bu nit boobaa tamit xam naa beneen foire gën a ñëw dina gën a tawfeex daal nit ñi dina gën a génn première bi rek la première nag mënut ta ñàkk nii moom def nii ak ñii loolu ta a ñàkk dañuy tàqale rek. waaw jàmbaar ngeen léegi ngeen nekk di liggéey yan sujet ak yan xar ngeen nekk di liggéey actuellement nii. instant bi nii macha allah lañ fi teg nii moom moom instant bi moom vingt mois la amagun moo nekk nii waaw. amoon na fi porte ay yu góor yooyu dañ leen génne moom moo tënk bële ne la moom moo moom moo ko jur moo nekk ci posture bi nii waaw. waaw mooy dikkoon waaw. Mhm. Louis. Mm-hmm. Louis Anam moom. ñëwut de moom may la àndal moo nekk nii. waaw. bi doomu nidoo la moo nekk waaw moo nekk mm-hmm. ne. Euh, ñoom ñoom Baye Jili. ok Baye la. ak yan famille. ak ak maman en tout cas ci ñan lañ bokk ñoom ñii ci nido la. ñoom ñëpp ci nido la waaw. ay famille nido daal ñoo fi nekk. ak sëtti nido tamit yéen a waaw waaw ñu ngi ziar bu baax baax di gërëm ñëpp rek. di ziar ñëpp di ziar Bamba tamit. Mm-hmm. kontaan nañ ci moom bu baax a baax. gis na liggéeyam tamit nga xam ne ay gone la rek dañuy liggéey rek. dañu mm-hmm. jàpp yàlla tamit ñu ñaanalante ñëpp. mu gën a tawféexe te ñuy gën a yaatal. élevage mm-hmm. yaatal rek du pour tàncal dañ yaatal ñëpp xaj suñu yaatu rek ñëpp dañuy bokk adduna bi loo yaatu rek mu yaatu waaye loolu xëcc pour taf ko sa côté rek day metti il faut nga xëcc ñeneen ñu ñëw bokk te ñu ñëwagut tamit nan xam ne dañoo a ñëw ndax li tàmbaliment rek la après ëllëg dañoo bëgg ni ni Sénégal def ñu def ñu ko raw yàlla nag mën na lépp te yàlla ñu ko yàlla defal defal ñu tawfeex taysir di gërëm ñëpp ziaral di leen am laaj bu ma la ko laajul duñ ma ko baal Nido doomu champion bu mag a mag la doomu kan la ah, Nido moom daanaka man mënu maa lu bari ndax fii ko ma bëggee xaadim du yor man daanaka bi ma ñëwee ci xaadim yàggul lool. man maa te man dama dégg ci histoire bu bari ci Nido te foire bii nii wane na lu bari ni moom liggéey na ko fi. Uh-huh. daanaka mooy dégg bi c'est Nido doomu Nido nga fi dégg te lépp ci Bàmba la jóge te di ko taw fii xol baax a baax def na ci lu rafet rek. def na ci lu rafet wallaahi. ok waaw cant ak ngërëm rek. dinaa la wax Nido doomu kan la. <laughs> jërëjëf.